que dafa manque ci société société bi di dundu def fi bàyyi ma xam nga kenn xamul lan lay tekki nga bokk nit ki service bokk yow ci famille bu baax mhm. bokk ci famille boo xam dañoo doylu yow ngay incarné ci wàllu titre wala wala wàllu démarche loo xam ni yegg na la ci nga éliminer dund nit ki ci loo tegul fenn mhm. euh, xëy na nag dañ ci am ñàkk tiitaange mhm. moo tax sanction yi fawuñu ñu ko peine de ñu delloo si waat ko loolu dina bokk ci li selal jikko yi fat Abdou junj nako sank def sa musiba wala sa loxo taq deret ba nopi ñu lay dugal ci liste gracier loolu kenn xamul lan la tuddu loolu kenn xamul la tuddu après ki da fay perte. yooyu yëpp nag politique yi ñom ñoy responsable bi gouvernement bi moy responsable bi ci ay anam yu bëree bëri. parce que buñu waxé walu atté buñu waxé walu grâce buñu waxé walu wàllu jikko bu wax ay difficulté ci dundu askan lepp amna ci part de responsabilité mais xadi ay jafé jafé ci ndaw joxul kenn raison. pour nga xagn ndaw li dundam xam nga dañu ni ki moy superviseur en général liñu faral di mine superviseur ñaaré mom moy nek supérieur ou comme muy kon xeyna sax ci walu salaire mo na moo ko tane. Mhm. mais kon euh, iñaanante wala jalousie warut man am sen diggante. Mhm. au contraire kon ki amna ak njubadi gu nek ci mom mhm. njubadi nak euh dafa am lu koy sabab. denc dencal nit ki musibaam ci la bokk. Euh, ci wàllu famille. nga xam ni kii mu ngi def naka su dul noonu ñëpp ñu dafa baax. nga xam ni kii mu ngi commencé benn train de vie boo xam ni xam nga ni am amam antanu ko te doo ko recadré doo ko jubbanti. yooyu nag bu gouvernement amee part de responsabilité mi tam société bi ak famille bi daf ci am part de responsabilité. Euh, bu ñu demee ba bàyyi ñi mu a taxaw ak doom ni ko su li ngay am. mayu la ngay dund dund gii ngay dund. Mhm. wala sa comportement bii du sa am am moo la ko may. Mhm. Euh, moo tax yu bëri xale yi di ko def léegi ci wàllug euh, jaay sa bopp ak wàllug ngóor jigéen ak yeneen ak yeneen. Mhm. phénomène la. phénomène société la boo xamante ni bii euh, xeex ko nag guddi yi dina jafe fii commencé woo ko ci ren ba. ren bi nag faaw gouvernement bi moo ci jiitu ànd ak nitu diine yi mais li may wax daal xat metti na certes. mais nag bu mu yóbbu fitu askan wi. ab mhm. population la ñu peuple boo xamante ni bii dafa dafa war a dund ci wàllu jàmm. Mhm. dafa war a dund ci xel mu dal dafa war a dund dund gu taxaw ca lànge kon ay violence ay benn benn fitna yi am. Mhm. waratu mën a tiital askan wi yëpp ba nga xam ne kenn dootul nelaw ba yandoor. assassinat yi dong la ñu wax et pourtant semaine bii passé maa ngi fàttali euh, ministre bi wax lu jëm ci wàllu biir réew mi. Euh, ni ko bi mu defee déclaration ci wàllu fiilu terre bi ñu sàccoon. ma ne ko fiilu terre bi dey am na solo. parce que ay nit moo mënoon nañ cee dee mais ci benn ay bis boobu ñu sàcc fiilu terre bi boo totalisé am na quatorze personnes yoo xam ne kuñ ci reyu dañu laa enlever te dégguñu nga wax si. donc yooyu di yoot ndànk-ndànk ñu koy banaliser mais mooy dem ba ëgg si fii tey nit ñi di rayante digg ba euh, cëkk. ci foofu sax la ñuy taxaw ba tey comme ni ñu ko waxee agression yi ñu nemmeeku ak fitna gi xëy na mal bu gën a profond moom lay euh, nëbb bu ñu nemmeekoo crime ak agression yi am fan yi ñu euh, weesu violence bi dañu koy def ci forme yëpp ab commentaire la bu Ndeye di met Ndaw. Fatou Kiné Gueye xamante woon na ak bu baax xasi mu baax mi nga xam ni moo jël bakkanam ci anam yu ñaaw ndax dañoo bokkoon fi ñu doon liggéeyee ca point multiservice ba nekk ca Pikine Rue 10 jëf ju ñaaw ji nag dafa ñëw rek dolleeku si ak criminel yi ñuy faral di gis saa su nekk te lu ci ëpp nag ña koy def dañuy xamanteek ak ki ñi jël bakkanam kaa bu ñëw rek daanaka dafay nurook moroomam firnde yi saa bu enquête bi wanee rek ni kañu jàpp xamante woon na ak bu baax ka ko def jëf ju ñaaw jooju yenn jafe yoo xamante ne ni dafa nekk ci société sénégalaise ñàkk xajonte bëgg xaalis ak fiira naataange ñu fàttaliku Fatoumata Matar Ndiaye nga xam ni moo nekkoon vice présidente conseil économique social environnemental ci biir néegu biiram lañu ko fekk jamante ko ba mu faatu te ko ko def du kenn ku dul ki ko jege lool muy chauffeur am Bàcci Sow kaay du jeex tëgg bii di Ndongo Gueye moom it néewam ña ko fekk ca Cambérène ñu dugal ko ci biir saak def ko ci biir otorom ki def jëf ju ñaaw jooju nag du kenn ku dul Bas Thiam mi nga xam ne daf koo ameloon xaalis ca Ndar itam étudiante bii di Seynabou Ka dafa réeroon lu yàgg waaye mi ngi feeñ ci benn village mu nekk ca Dun Baba Dieye nekk ca booru ko ko ji du kenn rek ku dul koo xamante ne ni daf doon bëggante ak moom muy moroomu étudiant am jëf yu ñaaw yooyu yëpp di xew mënuñ ci tudd benn yoon ñàkkum sécurité ndax fa muy amee mu ñu faa njortu benn yoon ni fii amul sécurité kon loolu faw ñu def ci ab taxaw seetlu état bi xool bu baax a nan la ñuy xeexee boobu la phénomène nga xam ne nag dafa bokk ci ay politique social waaye itam xool yan mutation donte mbirum sécurité ñu ngi koy faral di yëkkati saa suñu nit ñàkkee bakkanam waaye nag lu yëngu la ko yëngal ko ëkk doole ñu àddu jëmale ko ci leneen gën kaa néew fukki milliards ak ñeent euh, moom la association bi ëmb ma ñëw Sénégal yi di tàkku ci groupe Sénégal mu fay leen ko ñoom jàkkaarloo woon nañu ak taskatu xibaar yi tey ci suba euh, la ñu xamle moo di koppar yooyu li ab subvention la bu euh, nguur gi war a def ci secteur bi bu fekkee dañu bañ njëgu saagu farine de blé bi yokk bu ñu sukkandikoo ba tey ci meññee yooyu le groupe Sénégal faw rek mu joxe koppar yooyu bu fekkee dafa bañ blé marché blé ñàkk ci marché bi ànd ci ak Younousa Baldé Meunier ak industriel yu Sénégal yëkkati seeni kàddu di sàkku ci nguur gi rek mu fay leen seeni bor bu toll ci lu ëpp fukki milliards ak ñeent. arrêté bi nga xam ni moom moo génnoon en mille vingt et moo ñu tënk ba léegi arrêté bi dafa nii saaku mburu mënul weesu dix neuf mille deux cent fa war a yem lu mu wunti jar man état lépp loo xam ni weesu na donc trois cent vingt cinq euro tonne rek man maa koy gàttu. mooy dige la boo xam ni ba léegi ñun jotuñu xaalis bi. bañu sukkandiku ci seeni kàddu bu leen nguur gi fayul dootuñu mën a approvisionné wu ci blé ci marché bi te loolu nag dina jur ay conséquences yu métti ci askan wi. ñaari mbir moo nar a am soit mu ñëwee ni ñoom mënatuñu commandé parce que bor bi tënk na leen bu pare mënatuñu sax commandé faf ndax banque yi wóolootuñu leen au ila ñu commandé waaye bu boobaa farine day yokk suñu moytuwul. bu fekkee ni nii lañu ñu continuer soit usines yi dañuy tëj wala ñu yokk njëgu mburu Claude Demba Diop ak it ñoo ñam di xam ne nii rek seeni filière bi dañ ko war a sauver ndaxte prime de l' importation bu nguur gi jëloon en charge ngir jàppale askan wi tey jii nii wone na limitam association bi ëmb euh, ëmb meunier ak industriel yu Sénégal yi daal dina ci porox ndollu euh, di rafetlu initiative bu ISRA mi bëgg fi ci réewum Sénégal ñu fi bay euh, blé waaye bu ñu sukkandikoo ci Claude Demba Diop indépendance ci ñu am blé bu doy fi ci réew mi du luy gaaw am ñu ondi chèque moom. légui nak Sénégal kañ lañuy mëna mën blé ma ni loolu du yomb. moo tax jëfandikoo mburu moom du loo xam ni war nañ ko mën a xalaat tey. li nga xam ni nag mooy euh, xalaat bi nga xam ni jàpp nañ ni mu ngi bugg bënn mooy liggéey bi rafet bi nga xam ni ISRA ngi koy def pour nit ñi gën a jublu ci mbayum blé ci senegal maanaam gëstu boobu wane na ni ci at yi ñuy ñëw bu fekkee nit ñi farlu nañ ci du ñàkk ni dañ ko mën a bay fii ci senegal ba dina tax la nga xam ni moom lañ doon jëndee bitim réew dañ ko mën a jëndee fii ci biir Sénégal bay moo soo xalaat bu rafet la waaye ndax jotul itam ñu xool yeneen lu dul blé di ko jéem a ndékkee <laughs> bu ñu waxee bay blé daf may sax reetaan yow li nga am mu nekk à tes portées sa histoire muy gerte muy dugub muy basi muy saaña muy gajaanga mhm. dem na ba amatul benn valeur Sénégal bokkoon ci réew yi dàqoon exporté exporté gerte bëtuñ waa ji sébbi mhm.

wala ñoom est-ce que waxtaan nañu ak industrie yi nga xam ñooy importer blé. Mhm. ñaata tonnes blé xam nañu ko sax ñoom ci seen ay données ndax douane bi. Mhm. mais est-ce que yundulu nañu ba xam ñaata tonnes blé lañuy importer fii par mois wala par at ñu xam ba xam mën nañu koo bay wala det euh, ñaata tonnes yi mboq et pourtant ñu ngi jéem a bay bay lu sax mboq mais ñaata tonnes yi mboq la ñuy importer. ci wàllu aliment de bétail ak yeneen ak yeneen. Euh, ñu toll ci jamono joo xamante ni bii naxante. Mhm. baaxul. nañu jéem a wax ak techniciens yi waa ISRA ñu ngi fii mm-hmm. ñu jéem a xalaat lu alternative li fi nekk mboq wala basi wala dugub te yooyu xat mm-hmm. benn ci yombatul kilo bi doon jar deux cent egg na quatre cent léegi mm-hmm. basi dafa yokk mboq dafa yokk suuna dafa yokk gerte dafa yokk lépp amatul accès bi amatuñ ci accès ba ci li ñuy bay fii mais bu ñu demee ba loolu rëcc nag sàkkaa li ñuy bayewul fii ñoom mun nañu njort ni bu ñu defee ay pexe mun nañoo bay bele mais man bele sax la ñuy bay parce que euh, Claude mi doon wax sànq xam na ni pour nga am bele bu am qualité comme bi jóge Ukraine sax doonul lu yomb qualité yi tolloowul même bi baye béyee ak bi baye bi baye France bokul ñom xam nañu différence bi bu baaxa baax loolu motax d'ailleurs ci waxtan mo waxtaan ak directeur général bu Grand Moulin de Dakar mm-hmm. euh li tax ñuy gëna préférer euh blé biy jóge Ukraine moy mburu bi ñuy jaay Sénégal duñ ko lak légui consommer ko légui comme tougol mm-hmm. dañ koy lak légui mën na am 5 heures de temps 6 heures de temps ki kay consommer soo koo jël pour nga am mburu bu mel non dafa am ben qualité bu mu laaj ci blé moom méngoog bele bi jóge Ukraine mhm. donc noppee guñu loolu dalloo xel gi la li gën a